Salut les amis des sportifs et des Barbechaux. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de des likes. merci de des abonnés. Merci également du bail ni commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Inbox sénégalais, fait pour les Monténégrins, 14 régions du Sénégal, Rokhroukhari, Gorgoradi, Ninglé, Lidia Dieufel, Ninek également, qui l'hôpital et qui est du février, Yal, Nusun Brom Fogesen Bok, Niorek Diam, Ninek Tikasoyi. Nous avons aussi erreur judiciaire, Guignol, Nida Fulmon, Fuyo, Busun Brom, Guignol, Feu, Delwar, Lensen, Ningabot, Nida Doat, Nusun Brom, Khalena, Jennifer, aussi, Tayer, Réunion en avance ensemble dans la magie de Babo Show et des Sport TV. L'actualité en continu, Gac, de Nouvelle-Nouvelle-Tanée, regroupement des Lions, avec également quelques absents. mais aussi Vinicius Junior qui parle de sa rivalité avec Kian Mbappé avec Ballon d'Or. Il est venu faire une concert et L'erreur, la tabouna qui a donc Unai Emery, d'Arnei Khatim, un contrat prolongé contrat avec Aston Villa 2029, l'entraîneur espagnol. Il y a un gars qui a dit, il a maintenir une dynamique. Unai Emery, l'entraîneur des petites équipes équipe bi ma ko parce que moom équipe yu mag yi moom dañ ko a des problèmes pendant ce temps là ki nga xam mooy Maresca di waa ji ñu xelmati nekk entraîneur pour euh, Leicester jël sax meilleur entraîneur si saison bi euh, ñu daal di koy bëgg du côté de Chelsea c'est presque fait moom nag lu tax gars ko gën a yóbbu il était l'assistant de kii di Pep Guardiola jamono ji mu nekkee donc Manchester City ah donc jaar na fa nekk fa assistant avant moo daal di euh, mais également entraîneur yi ngeen gis ils sont libres de tout contrat pour l'instant instant amuñu kenn euh, foo xam ne moo euh, yor fi ne nii fu leen neex ñu daal di koy dem euh, liste rek liste bu exhaustive pendant ce temps aussi ki nga xamné nak moy donc kii jour bi hein, donc à 23 ans actuellement tous ces trophées là il les a gagnés un jeune bo xamné il est sous côté moo hein, mais pour bu football il n'est plus à présenter la pépite de Manchester City Maresca donc qui va devenir L'entraîneur des Blues de Chelsea les dernières informations et que le fait que aussi pratiqué ah, pratiquer même jeu presque Pep Guardiola parce que assistant blonde et tout beaucoup na daal convaincre l'équipe de euh, Chelsea en entraînant avec beaucoup d'ambition Mason Greenwood mon gars il est du côté de Manchester United il faut des lots du fa yàgg du fa yàq ndax gars yi dañ ko bëgg a indi ba pare soo ko xool ban club moo ko bëgg ñuy fàtt nañ ne Xetafe ko àlloon te Xetafe ba léegi bëgg nañ ko recruter am na club yoo xam ne ils sont intéressés également par cette pépite pendant ce temps beneen pépite bi di kii mooy Arda Güler Arda Güler nag nen dama bëgg a nekk le premier joueur donc euh, turc bu gagné Ligue des champions mais également dama bëgg a jouer match bi ah donc bëgg naa euh, am ci temps de jeu moom temps de jeu aussi grawul mais daal bëgg naa nekk le premier turc à avoir gagné la Ligue des euh, champions Ligue des champions boobu sax la ñuy wax ba tey mais nga mooy donc Vinicius Junior nga xam ne bokk na ci grandissime favori pour jël ballon d'or bi gars yi dañ ko laaj ne ko ndax yow actuellement yaa que euh, favori ak Mbappé mu ne écoutez man ak rivalité ak Mbappé yu wax daal di waxtaan la euh, jamono ji xalat ko sax man li ma gën ñor moy dal ñu dal di gagner Ligue des champions bi moy def sama saison buma ma Ligue des champions rek euh, saison momi nga xam nak actuellement mom moy porté hein, Real Madrid ak yeneen joueurs yi fa nekk mu ñoom Bellingham et tout donc Vinicius Junior nga même qui est sur la bonne voie et que bu ko gagner aussi de ko mériter. on espère qu'il va pouvoir le gagner gagner la gagner plutôt ce le gagner plutôt ce ballon d'or il le mérite pendant ce temps Aliou Cissé tactico gis ngeen ko mi ngi nii ci hôtelu gaynde donc pour c'est sen premier galop d'entraînement bi xamna tay lay am El Tactico donc qui a convoqué une liste hein, avec euh, quelques tout petits nouveautés ak aussi ñen ñu dellu si waat ak yeneen joueurs yo également ils étaient déjà dans la liste qui nak moy nouveauté bi di Cherif Ndiaye ah, ñëw hein, ak njaxasam ngi ne bu bàyyi fal bi di def ñëw euh, ci équipe bo actuellement ils ont des objectifs et on sait qu'actuellement ce sera donc euh, une effet un effectif bo xamné très riche bo xamné liñ ci xaar moy ñaari match yi contre Congo ak Mauritanie c'est un bop point hein. donc Ismaël Sarr est là il deux cadres qui seront absents donc euh, notamment Sadio Mané et Kalidou Koulibaly ndax match tay mais quand même rek voilà le Sénégal attend bien évidemment ces deux matchs avec beaucoup de sérieux beaucoup de concentration en espérant que le meilleur sera fait et que le Sénégal ne à des match pour espérer qualifier Coupe du Monde 2026